salaamaaleykum yaa booy nuyu naa la. maa ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm. maa maa ngi ci jàmm. loo tudd. maa ngi tudd Penda Dianka. maa Penda loo bokk ak ki nga xam ne mooy Cheikh. Cheikh de rakku yaayam laa tantam laa. waaw yan témoignage nga ñu mën a jox ci moom. Cheikh. ah Cheikh de doom ju baax la woon. doomu ñëpp nag. yaayam moo ko jur waaye ñëpp ko jur. ndax xale bu baax la woon. xale bu am njariñ la woon nag. xale bu nangoo liggéey. doxul ci lenn caaxaan tam lenn caaxaan jox ko li tax ñu boom ko nii dimbali doomu aadama moo ko taxoon a jóg police yi rey ko ñoo rey suñu doom duñ te mën sa dellu ginnaaw nag ndax dara jot ko ndax man àll ba ci guddi waxtaan ma ak moom wax moom lu bari mu ne ma màdd laa jóge France ñuy waxtaan di waxtaan ba ci ay guddi mu ne ma alxames boo koy na nga fa ñëw ma ne ko alxames bu naa du mën ñëw ndax dafay xat mu kon ay 13 heures nag ma woo ma jox la paas man ko waa d'accord treize treize heures boobu ma di ko woo di ko woo di ko woo di ko woo ba suñu ma koo jot portable bi di sonné rek mun ma koo jot àjjuma bi ma di ko woo mun ma koo jot samedi bi ma dem Touba di ko woo mun ma koo jot man ma de seex mi jaaxal na maa ngi koy waaye mun ma koo jot waaye naa bàyyi ba ñibbisi su ma ñibbisee xam naa ne ñëw fii kër yaayam mu ñibbisi àllarba ma jaar sama kër benn mag bu nekk parcelle ci noonu daal la ñuy préparé mais waa julli cinq heures rek sama doyu mag bi woo ma ak jëkkër ji woo sama mag bi nii leen kaay ni ñu ñëwee rek mu daay ma taxaw ci bunt bi nii rek mu ne ma seex daal dañoo dafa am dafa xaw a feebar daal xaw am na mu waxee daal ma lañ moo jar seex foofu rek xam nga man daal ma daal di yuuxu foofu muy def leen ndànk defal ndànk ñu woote waat ñu woote waat desewaat mu daal neexul ma neexul daal waaye seex daal nañ police la ma affaire daal seex daal gaañu na waaw mu metti loolu nag li soog boo xamante ni nii tas yaakaaru ndayam tas yaakaaru ay rakam ak ñun ñi ay tantam ak ay bokkam yëpp ndax xale la woon macha allah waaye ku am njariñ la woon. seex jaayul yàmba jaayul dorog bañ ko war mën koo def nii nit ñi sax ngi jaayul dorog du dugg ci kaso bi ñu leen di génnee dara du ci mujj nit sax rey na nit te kenn reyu moom deful dara ju jógee France ñëw dem di dimbali ay ay bokkam. di leen jox paas boom ko ci àll bi police yi def ko lii te ay carte à gis la xaw ma rey nañu nag moom reyu seex kese rey na mbokkam yëpp yëpp yëpp yaaya maane moom waaye yàlla na ko yàlla atteek ñun duñ ko baal duñ ko baal ëllëg te lii nag kii borom réew mi war na cee wax parce que lii dëgg du yoon jël doomi jàmbur joo xam ne ma dong la yaayam amoon yaakaar ko ay rakkam yaakaar ay bokkam yëpp yaakaar ko muy nit ko baax ree ree rek mu doon moom la seex daan def daaw bi mu jógee France maa moom fii ci kaw dégg nga ci teg musique ñuy fecc amul benn problème jotewul ak kenn dara nit ku baax nit ku yaru di xale toon nañu ba ci kanamu yàlla nag léegi nag ñu ngi ñaan yoon bu fekkee moom lay moo ne ci réew mi tey def yoon te dëgg rek mooy dëgg mooy jëkk mooy mujj ñu def lii ci dëgg àtte ko ci dëgg ndax jaay doole paasewul lii waaw loolu laa amoon ci lu ma ciy wax. am na njaboot wala. waaw am na njaboot kay am na ñaar ñu góor ak ñaar ñu jigéen waaw. d'accord jërëjëf maman. jërëjëf ngeen.